Belgrade dugg nañu ci diggu géew. maa ñëw ci làmb Gunaas Salam Salam Issa Pouy Alam Dar ah am abando pour Xaarim Ndiaye numéro 2 benn combat lay essayé may Bala Diouf ñun ba daan pa fay mën nañu may sama ma yéeg. sama soxla Zallo dafa war a leer ba ma njoon su lay dop yaa ngi dégg Issa Pouy sax ma jox ko revanche yaa ngi dégg Issa Pouy ma jox ko revanche yaa ngi dégg wax ni ay ma te kuñ ne yaay yaay champion am nga problème kuñ ne kuñ ne faw yaay favori am nga problème. yow pourquoi nga viser seulement Bathie Sène mais parce que kan kan ngay moom sens ku moom fu mu ay gaañ de. li mooy manqué respect parce que ay ay ay ay mag ñoo ñuy déglu Sénégal Bécaye Mbaye yéen a ngi nii ay magum jëm nga dama leen jox cër mbër boo koy dëkk bi may bi may baaxu baaxu sànq mënoon ma dëkk ma jaxase ko foofu mais ñu bàyyi wax jooju léegi dama ne la. non non parce que yow bàcc seeraas daf la daan nga koy wër booy sëy da nga kaa daan mu lay wër loolu loo ko gisee. non normal sax mu wër ma mais dafa am fooy wëree nit ki.